al imaam ibnul qayyim rahmatullahi alayhi nee na mujalasatu saalihin toogaaleeg ñu baax ñi lañ ci yàlla boole tuxawiluka min sittatin ila sitta daf lay jëlee ci juróom benni musiba jëmee la ci juróom benni yiw mina shakki dana la jële ci sikk ilal yaqini jëmee la ci certitude wóolute wa mina riyaay dana la jële ci ngistal ilal ixlaas jëmee la ci sellal ba nga xam ne dootoo gisati kenn kudul yàlla ci sa jëf ak ci sa wax ak ci sa yëngu ak ci sa xaal wa min al ghaflati nee dana la jëlee ci càggante te mooy absence ila zikri jëmee la ci fàttali ko ak tudd yàlla te mooy présence wa min al raghbati ne dana la jële ci xemmem fi dunia ci àdduna nga xam ne sa occupation ak sa préoccupation yëpp àdduna la dana la ca jële ila raxbati jëm ci xemmem fil axira ci àlaxira ba nga xam ne jëf ji su niroo jëfi àdduna sax jëfi àlaxira la waaw ndax wa inna daara alaxirata la hiya alxayawaan waaw nee na juróomeel ba waminal kibri dana la jëlee ci jàngoro yu rëy ila tawaaduci jëm ci wérug ak mbaax ak yiwu toroxlu waaw ndax ku rëy yàlla du am accès ci xolam mu alku ba faw ku toroxlu nag yàlla yëkkati ko waaw wa min suu i niyati dana àndaaleeg ñu baax ñi dana la jële ci ñaaw yéene ñaaw yéene ila nasihati jëm ci laaye biir waaw xam nga ki ñaaw yéene yéenewul kenn jàmm waaye kii laaye biir ñëpp la yéene yow hada wa sallallahu ala mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam